Namo mama ke mama ke mama ke murotanye musujo yala Muti barola আল্লাহ দিয়া নাম মতি বারলা মতি বারলা আল্লাহ দিয়া নাম মতি বারলা আল্লাহাসাবাইয়ে বেফলনি মাকন mo mama ke mama ke mama ke urutanye musujo yala maa di nuyu yéen waa Info Euh, di leen jaarjëfal si ñëw bi ngeen ñëw fii pour ñu mën a xam kuy Prince xam la moo waral Prince lu tax Prince di nuyu waa Sénégal képp foo mënti moo xam danga tawat moo xam foo mënti ne ñu ñaan yàlla rekk jàmm gën a yokk Sénégal di si nuyu samay waajur samay kilifa de si nuyu ñëpp daal ndax kulim rek da ngay man naan ko mandinkoolu ananka moy laalu mbal konta ndam mbaal jayla kunke andu mbara uh, kan moy prince ak kan la commencé def music wow, wow, mo juddu si music mo si juddu sam papa ak sama yaay sama mam ñom ñëpp manam géwél lañ ñu lañ bu ñu la nee surtout su njulu rek le roi de la kora kon yow prince nga am na ñeneen ñu fi ne bari nañ waaw dama judd ci géwél ci keppaaru ngéwél nu koy olof yi di waxee ci géwél waaw parcours bi waaw bi ma boo xoolee comme juddu bi ci géwél bi loolu leer na dafa am sama mag bu naan Ali Bulo moo ma jàngal waaw donte nag si géwél laa juddoo foog nga am ku la teete moom moo ma jàngal après loolu ma nekk si bale ma bale Mansour Gueye nekk fa après si la si laa dem tournée après ma may dem tournée musique quoi après ma dem toog Europe waaw presque pendant dix ans ma nekk ko Europe di def tournée mais chaque at dinaa ñëw. dina di ñew fi quoi suma ko tanké lool la may vivre autrice ak ah, digante Suisse de def tourner sa at may def tourner si yenen de ki waaw turu prince bi nak prince la mo si lu si mais dama demone ben tourner maax samay xaritu nasaran legi nak waaw public bi si boppam ñoo jékki-jékki ne ne ma prince parce que lu may sol la tamit quoi yëre traditionnel yu may sol tournée foog naa loolu ak ah, sama jëmm nu may comporter si kaw seen loolu tax na ñu ne ma prince mais ci lu ci lu dëgg lu wér tamit prince la waaw sa maam su nekkee roi de la Kora prince nga mën a doon waaw looloo indi loolu. sama carrière internationale. du ma wax lépp tay tay tay tay parce que comme koy def ces at bi lu mu ndaw ndaw 60 concerts dëkk yu nek du benn dëkk rek du Suisse rek amna base Suisse amna base Autriche mais chaque année fa la ñuy commencé def tourner amna ay projet ay façon projet yu différente fiakh ak si yalla fiakh ay at yu néew dinañ ci xam dara. Euh, bon Europe damay def ay différents musique musique amul frontière euh, projet bi projet bu ne nu mu ñëwee rek des fois nga daj ay tubaab bëgg ñëw def wax man projet ñu wax ma est-ce que wooy mën nga tëggee nii wala wooyee nii dama koy dama koy demee dama naan waaw ñu dóor si loolu loolu génn polyvalent am amul frontière daal euh, des fois kii nii Zonef la nekk mooy Sankum ñun am nañ foofu groupe Euh, groupe bu ñu naan Sissoko Broda dañuy dóor foofu tamit ay concert euh, bari na daal lu ñuy def du ma ko mën a tënk-tënk nii mais c'est sûr que projet international bi moo ngi marché macha allah au niveau national euh, waaw dañuy ñëw rek ah jéem dañuy jéem mënuñu. mais sunu xalaat bu gàtt ndax du man rek maay liggéey am na ñu ne sama ginnaaw ñooñu tam dama leen di gërëm si lépp lu ñu jàpp xam nga ñi nga xam ne kenn du leen gis mais moo waral boo déggee sànq ma ne la musique amul frontière mbo euh, si sama xel bu gàtt dama bëgg a jël instrument kora bi jaxase kaax mbalax boo xoolee mbalax musique la comme musique yëpp donte nag populairul ci côté européen yi walla yenn affaires yi loolu laa bëgg ma jël ko jaxase ka sabar jaxase même sowruba bu ci xajee ndax boo xoolee jàmbadon boo ko xoolee ba mu baax boo dégloo mbalax bu baax dala koy jox comprendre nga moo tax sama mbëbët daal mooy dama bëgg a jël mbalax am na ñu ko def dama mais dama koy jël damay jéem mënuma yàlla rek a mën jéem ba tubaab yu ma nekkal man daal fu ma nekkee ñu koy déglu comme ni ñuy dégloo yeneen musique yi loolooy sama mission fii. waa tiitre album bi am naa ay titre nu mu euh, lu si nekk bari na si ay surprise ndax daawaati géej def naa benn single génne ko Fitrine ak Seka Seka mooy mbëggeel bi. album bi moo ngi war a tudd xel ak xool euh, son bii nii sa si la nekk ah bii son mbëggeel la mooy suma xamoon waaw bii nii si album bi la nekkoon benn titre bu nekk ci album bu war a génn la le vingt décembre. Mm-hmm. foto album décembre. waaw. waaw waaw fu mu nekk nii date bu njëkk a génn mooy le 28 décembre Ravin euh, am na yeneen dat mais dañoo bëgg a bàyyi ba le 28 bi euh, passé ñu lancé waat date yooyu parce que am nañ gan yuy ñëw tamit am na yeneen ak yeneen mais daal le 28 décembre incha allah mooy sorti album Prince Moussa Sissoko. Mhm.

pour tamit def comme ñëpp parce que Sénégal moom lañu am bu ñu sañoon fu ñuy tudd yeneen dëkk yi ci musique ñu tudd ci tamit Sénégal mais mbalax bi baax na neex na concept yi rek la ñuy xool nuñ koy defee gars yi yaatal euh, boo déggee ma wax loolu am na yeneen yeneen musiciens yi bari nañ ñi nga xam ne ne ñoo ngi dóor Euh, suñ demee tournée moo dañuy nekk ay sénégalais dañ leen di déglu bari nañ sunuy papa yi wala sunuy mag yi sunuy nijaay yi ñun fi jiitu ñu topp si ñoom rek xool lu ñuy def ñun bu ñu ñëwee ñu xool nuñ koy gën a moderniser waaye surtout di jël traditionnel bi di ko si dugalaale. loolu gis naa ko mbalax bi baax na trop di xool texte yi yu ñuy woyee ndax yenn saay man. damay woy concert day am euh, dañuy toog ñun ñëpp mooy musiciens yi ak tubaab yi comme ay journaliste ñu may laaj yan texte nga doon way xam nga loolu dafa am importance parce que pour man suñu ubbalee bunt yi mooy fii si niveau Sénégal d'abord ba pare ah pour loolu bëgguma si woon wax sax mais man bala may lah jaay damay lah lek bala may defi promotion ki nga xamne fenen la joge damay defar ku dekk ci dekk bi wa pare lolu tamit benen jafe-jafe la suñu nouveau talent yi comprendre nga bu baax tay bo xolé mfi sénégalais <laughs> dañuy am jafe-jafe ñun ñëpp nouveau talent yépp la jafe jafé moy promotion ndax soo amul promotion sa dëkk yeneen dëkk yi dañ lay xam mais ku sañoon sa dëkk xam la waaw loolu laa gën a xalaat ci musique sénégalaise mais mbalax bi buñ ko buñ ko defaree defaraat ko xool ak texte yi parce que Sénégal Sénégal am nañ ethnie yi bari nañ te ethnie bu nekk kultuuram la bu ñu jaxasee yëpp affaire yi dina dina dem man noonu rek laa gisee quoi. jotna def ay vitrine lol la njëkkee motax tax projet ay projet la euh, lay prek sama dundu yëpp foofu vitrine la ba man duma tal sama bop duma ma def pour man parce que ñom ñoom xëy na nyom ñoo gis lutax ñu may xëccoo ñom nasrani comprendre loolu du sama njàmbaarte ñima jitu la moy sama magi wala sama wajur

au Ravin Ravin Night Club soriwul maa ngi woo waa yi yëpp ndax ñoom gis nañ ne su ma masaan a ñëw damay dem fu ne xam nga nuyoo mais ren dama ñëw xam nga répété xam nga jàpp ma faw ma répété ngir ma leen bëggeel bon képp ki nga xam ne yaa ngi seetaan vidéo bi Pikine Info maa ngi lay woo ndax am na ay invité yu jóge ba Japon Suisse si boppam Autriche France gars yi dina ñëw te nag kora bi mooy tijji ak balafon traditionnel comme sànq rek question bi nga posé si euh, affaire musique international bi ak national euh, comme kora ak balafon sunu cosaan la ak ndënd sabar bon mais ñu dañuy tijjee fii kora balafon traditionnel ba pare teg si tuuti moderne affaire yi di dem mais gëm naa ne daal ku yéex doo am foo taxaw waxuma la toog taxaw laay wax ba pare maa ngi woo ñëpp ñëpp waa banlieue bi si boppam maa ngi leen di woo ku dégg sama video bi rek ku ko seetaan rek sama vidéo wax ku dégg lu may wax rek maa ngi lay woo sumasanyon sumasanyon kendulor kena si adunai famara sonike si suf dan gawur munte degu.

Dumudo de nale Masilang Nina duatenye mm-hmm. Famara soo nekkee si kaw suuf danga war a muñ te xam ne buru yàlla mooy kenn kuy dogal la la la la la la la Listen. Momonadanya Momonadanya Wabe alele ya sabu obey. Hein? Sous Son Seigneur, Sous ma Seigneur.